la la la la la ha la la fa la la ha la la la la la la la la la la fala ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah fala ilaha illallah la ilaha illallah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 la ilaha illallah yéen waa Touba France ak waa Europe rawatina nag yéen waa kër moom Cheikh Ibrahima Fall si jëwri yi nekk foofu ci France ñaan ko sëñ ga sëñ ma sëñ Lamine Balde sëñ Lamine Balde sëñ Gàmmu ñu ngi sëñ Gàmmu ñu ngi ak mboolem murid Baay Fall fi nekk yëpp rek sëñ Fallou Fall Cheikh Ibrahima Fall teewul ko ci loxol sëñ Cheikh Jëm Fall bu ñibbi àjjana sëñ Modou Moussa Fall Modou Mbène mi fi ne di xalifa Cheikh Ibrahima mu joxal ko liggéey bi mu yeesal ko woote waat ñëw na ba liggéey bi soññee ko soññale ko bu baax ngeen soññ bi ngeen ndax bi ñu ko dénkee la ngeen soo ñax yónnee ko ci ndax sëñ Aliou Badara Ndi ma ngi toog sëñ Mamadou Ndaw ngi toog dañoo ñëwoon foofu yi waxtaan ak yéen soññ si leen wax yoon nag du yoonu wax yoonu jëf la moom wax du ci maye dara jëf rek ci maye yéen a jëf ngeen ayul day jaay rek te lu waa nag noonu nga ni li ko ci liggéey ba takk sama loxo muy cinq cent vingt euros ci xaalis xaalis réew moom yi soo koy ci koo fii nag mu nekk juróom benn fukki junni ak juróom ñett ak téeméer ñaar fukki dërëm te ba Serigne Fall yàlla na ko nangul te gën leen ko mën lool ngeen yàgg ko def lool foofu yi ngeen ñëw suñu jàmbaar yi baax yi monsieur Modou daan ne ni li ngeen fi li ngeen fi indaale moo gën leen di wut si waaw ndax yéen foofu ab xaalis ngeen di wuti te yi ngeen fi ak taalibe ak taalibe gën lépp kon li ñu fa yóbbaale nañ ko denc baax dara bañ ko ayibal te ngeen wut na ba am ko ànd ak ma ñibbisi waaye noo bi tax ko def nag dafa leen jàmm ci réew moom nii dafa leen ak jàppandal boole leen ak yi te wala ne wërsëg yi te mos a nekk seen yépp yëpp waaw ba kenn ko ne daal la ko tax a jóg ba dëgg bu jàlligéey seen tool Cheikh Fall yal na ko Cheikh Fall defal bu ko yottam yal na bokk jekku ko jëfee nag ab ab la nu xëyee bu nu xëyee ngeen xëy ndax yoon moom du xeeb du naw bu xëyee yéen a si ñaar téeméer dërëm bu xëyee yéen a ko ci strañoo it mbaa mu yi mbaa weef yi kon nag moo fi dajee kon nag bu leen toog lambaa leen seen seen seen poste mbaa ngeen lam seen i jëf mbaa seen i yéene lu nga ci mën am rek ngeen yéene ko bu ngeen ñëwee nii lii ñëwee ci loxol seen tur Cheikh Rafal la la ñëw ci loxol Cheikh Rafal Cheikh Rafal lu ko waay jox jox ko seen tubaab lu waay jox seen tubaab jox ko Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lu waay jox Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jox ko suñu borom te alal alal dëgg dëgg dëgg sëñ bi nee na mooy li nga jox sëñ bi mooy alal li nga jox sëñ bi waaye loo bàyyi dem loolu moom doo ko mbaam mbaam moom moom wërsëg wërsëg wërsëg ngay bàyyi dem mbaam bala fi dem wërsëg dana ko fi bàyyi dem bàmba la fi dem waaye alal nag borom du ko bàyyi ginnaaw soo alal jëpp nag mooy lañ jox sëñ dëgg dëgg moo fi ñax ko lew ba mu wóor ko ne moo ko adda lu mooy jàmbaar waaye mooy ki ñax àllam ju ko lew ba mu wóor mu jox yàlla boobu mooy jàmbaar kon nu ñaan ci barke sëñ Tuubaa Seex fan yi wéral yaram yi

ñu bàyyi xel ci ne kon bu ngeen dem bu ko tey demee ci Serafal kon yéen dimbali ngeen leen waaye yéen leen dimbali ngeen sa bopp yéen dem ndax bu leen neexoon du ngeen ko indi fii ndax bu ngeen bu leen neexoon def def ay sërëjën baa ngeen def ko seen kër koy koy dem yàquwul ndax alal alal alal Serafal ngeen nii nii nii sama wéy ni sama mel bi waaw kon bu ko bu ngeen ko defoon seen kër kenn lu ko laaj ndax ci alal Serafal dama la jëmaat kon nag jërë ngeen jëf sama guddal fan yi defaral leen bu baax liggéey bi nga liggéeyal Cheikh Fall ngeen gën ko mën di yàgg ko def loolu ñu ngi sant bu baax ci taxawaay bi gis nañ ngeen ngeen soññu murid ak ñun jàppale sëñ bi kon kon nag loolu moom lu ngeen liggéeyal sëñ Tuubaa Cheikh Fall la sama borom bi leen ko mën loo yàlla na yokk mën gi yokk xéwal yi baax a baax ngeen yàgg ko def loolu rek barke Cheikh Fall jërëjëf moom ñaan nag Cheikh Mountakha Mbacké nag mii fi sëñ Tuubaa nag mu yàgg fi di wér mu war a ñëwat sëñ Tuubaa yëpp di ñaan itam sëñ Modou mu Mbende mii sëñ Amdi Modou Mbende mii fi ne di maam Cheikh Raye Fall mu yàgg fi lool te wér lool ba lépp lu mu yéene liggéeyal maam ja mu defoon ko yow ñettam te ànd ko mboolem ci yaakaar Cheikh Raye